على الرسول باب الوصول لنيل سولي أحمر حي صلي دواما وسب سلاما واسكر قلاما لي وبناي يا ذا الإرادة يا ذا الإفادة خالد سهادة لي باعتناي خين اهتداء سدني اهتداء سدني اهتداء بلا حناي سبي اختفائي بلا جفائي طيب عسائي طيب خدائي يا سل وجودي كل بجودي وجعل وجودي فوق الأدائي هب لي ودادا قدر المراد يا من أفاد بلا كرائي هب لي برورا خني الخرورا عبد سرارا لكل راي واذكر قلامي وهمت كلامي بلا ملامي ولا امتراي سدد لساني نوير جناني صفي اماني وسد برائي سهتت تطيرا لقد ميرا فلتكفي جورا لمن يرائي الله اكبر الله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 سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم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 والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى الله وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه الحمد لله الذي جعل يوم عيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen jéggilu te bàyyiwuma kenn it ci bis bu tedd bii nu fi dajale di bisu kori aadahu llahu alayna acharatil marrat munzilan alayna jamia anwail barakat di leen ci jottali nag نيكو باخوك كادوي سيري بي دي الشيخ سيري مختار حفظه الله تعالى ونصره ومكنه وزاد من حفظه ونصره وتمكينه يالا كو يالا غنا سام غن كو ويرل يوك كاتانام انام ييب غودل فانام با ماتال نالام ييب تانو اندكو موم ليب بجاه بجاه جدي الخديم alayhi ridwaanul baaqil qadiim sëñ baa ngi gërëm taalibe yi ci seen taxawaay yu rafet ci biir weer wu tedd wi nu génn nekki teew ci jàkka yi njàngum alxuraan njàngum xasaayit jataay yi yee jullit ñi ci seen wàllu diine ak dimbali leen ci ndogoog sukk rek yeneen xeeti ndimbal loolu lépp it li wajhillah yàlla na ko nangu mi ngi fàttali it laneen ndimbal lu yonent bi sallallahu alayhi wa ñu koy def ci bis bu tedd bii te setteegu ci kenn ku ko man ku moom boppam ak ku ko moomul góor ak jigéen mag ak ndaw bu xasee ba jullit muy muurum koor am na xadis bu wér muttafaqun alayhi an ibni omara radiallahu anhu bu ko wax mu di فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والهر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين waxoon نتكم ci kumtali باي واخ واخ wax waxi caaxaan ak jëfe ko day tax ba koor gi te loolu li muy tekki mooy du ko nangu moog lu amul la yemale bokk na ci njariñu mburum koor nag bu loolu amee ba ki wooroon nar a ñàkk kooram da koy raxas bam wicc ci lim nekkoon di wax waxi caaxaan walla jëfi ko te ñoo di jëpp wax walla jëf ju yàlla gërëmul moo xam néew na wala bari na bu ko defee boromam soog koo nangul kooram mu bañ koo ñàkk farada rasulullahi zakatal fitri tuhratan lissaimi min allawi warrafat wa toomatan lil miskin yi it am luñ lekk ci bis bi ba du ñelwaan kenn yendu seen kër doon laneen njariñ ci njariñam kon doonu looyof ba tax na sëriñ bi mu ngi koy fàttali jullit yépp yim bokkal diina ji ñépp rawatina taalibe yi mbokkal yoon wi te yàlla def tey muy njiit li yàlla na loolu yàgg te naalam yépp egg gannaaw loolu nee na nu dundal bis bii nu amee mbir mu mun bokkul bokkul ak kenn ne ko sëriñ bu mag bi waxe ci xut bi ci xutba bi wala naa fiihi shay'un fii lam nusharak dundale ko rafetal suñ diggante ak suñ boroom ci tudd yàlla lu bari ak rafetal sunuy diggante ñun ci sun biir ci yërmante jéggalante nemmikonte jokkalante ay teraanga ak lépp lu di dimbalante mi ngi fàttaleete it lu ko ñor lool te ñoroon mbooleem sunu kilifa yi ko jiitu rahimahumullahu wa radiya anhum mu di war may dëkk bi mi ngi nuy soññ bu baax ci sàmm ko gën jaa rafeti sàmmiin di fi moytoo def lu fi yellul di am xo diw coliin ak jëflante gu dëgganul ak yu ne demee te ku yilif kër ku ne mi ngi koy digal mu ci soññ waa këram ndax kër gu ne ak la ko wër bu setee dëkk bépp set dëkk bu ne ak la ko wër bu setee réew mépp set loolu la yàlla dogal nee na bun fàtte ne kenn kone ci nun ab sàmm la te sàmm bu ne moom la ñu laaj la muy sàmm ku sax ci def ndigal bàyyi tere nag booleeg digdilee ko tere jaanam wàcc waaye amul lenn lu mën a ñàkk ci yooyu <clears throat> digleeg tere munta ñàkk ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkari sart la ci kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas jullit ñi doon ñi gën ci xeet yi digle lu baax te koy def tere safaan te koy bàyyi moo leen ko may te buñ bàyyee li leen ko may rek ñàkk ko ni ko ba bani israel ñàkke wa anni faddaltukum alal alamin ñoom la woon démb ndégalul sàmm war may dëkk bi nag moom la waa dëkk bi ak ñi fi siyaare si jagoo waaye yeneen ndigal yi ak tere yi te yépp di yooyu lislaam fu taaliba nekk ci àddina bi mook waa dëkk bi ñoo ko bokk waa dëkk bi nag am nañ seen xaasi bopp ci kaw ñu nekk fi niñ fi war a nekke ku fi nekke ak defar ku ne sañ naa jàpp ne mi ngi ci biir kër sëñ bi tabbi ci loxoy sëñ bi te du ca jug ndax loolu lum ñaan boromam la te ñun taalibe yépp maase nañ gis ne lum ñaan boroomam lu ne may na ko ko te nee na ko wal tudxilil musliha fii yadi wa fii daari wa sabbitanhu bilhaadil wa fi ku fi nekkewul ak defar ku ne it taalibe bu ne sañ naa jàpp ne mi ngi fi waaye jotewut ak sëñ bi dara ndax muslu na ko moo ko demee na moom ne ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد تلوياك بمن يقل سنج بدريت لم جيم تبابم لا دلو بإذن الله ndax ñaan na boromam ne ko rudda makaida al ida ila al ida nee na it mi ngi ndokkeel julit yépp di ñaan yàlla nangul ñépp xam na ne yoon yeeg giseen yeeg dégg nii ñoo wuute waaye ñoom ñépp moom rekk lañuy wut mi ngi ñaanit yàlla mu bennale jullit ñi jeexal xiiroog ñaayoo yi am ci biir réewi jullit yi te kenn du ci jariñu kudul seeni noon du jur ludul dul seeni noon di leen gën a ëpp doole rekk rawatina nag li am bu amee te mooy noon yi di jàppule ñenn ca ña ca des te ñiñ jàppale it faw dañuy nangoo topp ci seen gannaaw rekk ilal abad lu ko may ñu xëy leen def nañ bëggoon a def nañ bokkoon def seen mbokk jullite ndax ànd bi nekkul ànd bu yàlla tax lii lu jullit yépp war a xam la mii delloy beral nag ndokkeel ak ziyaara kilifay diin ek yu aada yi ci réew mi te mbokk koog ñoom bokk ceeg ñoom yéene te mooy mu am jàmm te jëm kanam am jàmm te jëm kanam moom la ñëpp yéene ci réew bi di ñaan yàlla def loolu lii la ne woon naa ko jottali mbokki taliba yeeg mbokki jullit yeeg mbokki réew mi كل عام وأنتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.